ñu ne la euh, daf doon dem kaf euh, da doon dem Bakel doon dimbali ñi ñi ñu téye ko en période campagne électorale moom le premier ministre mu ñëw taxaw toogaat ci meeting mhm. di fàttali naan buñ ne bañ ma nee coppet yóbbu biñ ma nee coppet dëkk bi dafa tàkk c'est un de taille. xale yi dañoo jóg. mu ne ma ñoom kenn topp leen léegi moom il assume à ce que li foon yépp jamono saa yu ñu ko nee coppet te biñ ko nee coppet yóbbu si la dëkk bi daal si la économie bi reprendraat kon il veut dire montrer à ça que man biñ ma nee coppet yóbbu parce que léegi mu ngi wane nii mu ngi comparer boppam ak président Bougane mais buñ ne la coppet yóbbu yow dëkk bi loo fi am fonds commun la ko may impôt la ko may waaye kii buñ ko nee coppet yóbbu dafay wax ni ni même si c'est injuste bu leen yàq dara parce que dafay investir mille vingt milliards jaar ci loxoom mu yor fay entreprise foofu lay waxee je pas vu le patronat parce que tey patronat bi wër tey président de la république patronat bi taxawaalu ak ay club des investisseurs ce que Bougane pèse en terme d'emploi ce que Bougane pèse ci li muy dugal ci ay recettes ak lu muy dugal ci ay impôts moo ëpp très bien après maître maître bi Diallo bi nekkoon ci euh, plaidoirie yi euh, ñu ngi gis ne maître euh, Amadou Laaji Ba moom tam daa dina jël di wéyal li nga xamante ne moom tam moom moo di plaidoirie yi foofu ci biir tribunal bi merci beaucoup sunu ndaw yi nga xamante ne ñoo nekk di suivi li lay di procès bi à temps réel alors Abou mun ngaa. donc foofu laa doon waxee. dama mhm. ni en tant que chef d'entreprise. Mhm. ñu jël nit. Mhm. pendant combien de jours. si chef d'entreprise boo xam ne en terme d'RSE. ak fondation ak jël sa télévision ibbi ko def ci des grands cœurs di jàppale askan wi tey gisuma benn mem benn benn membre ci patronat bi. Mhm. bu ñemee manifesté wu. te buggaan li muy pesé te patronat bi fi des mu xaw ma mooy kenes ak muy xaw ma euh, CNP ak muy club des investisseurs. Mhm. mais tey amul lu ñu ëppalewul buggaan ci en terme d' mais loolu laa bëgg ñu xoolaat ko parce que ki ñu tëj ñetti casquette la am beneen bi si topp foofu lay félicité di ñaanal bu baax Cheikh Niass malgré que d'accord wuma ak moom au début ci yenn comportement yu bari mais Cheikh ñas taxawee na taxawaayu Sidi Lamine Niass parce que xam na ni Bougane Gueye yi dafa taxawoon ci wetu Sidi Lamine bu kër gi amee problème Bougane jël ci alalam ñëw accompagner Sidi Lamine ci lu kenn yëgul bi kër gi nekkee ci difficulté yi mu fekk fa ñëw ñoom Moustapha Diop fekk fa ña fay toog di ko xas mhm. xasit ya fay toog mhm. di ko xas mhm. mu fekk leen fa dimbali leen tey Cheikh Niass bi mu demee Tamba sori na trop mu ànd ak oustaz Assane dem ba foofu taxaw taxaw foofu laat la nga xam ne la buggaan doon def bu kër gi nekkee en difficulté kon xanaa ñi nekk si kër ga war nañoo rus parce que yéen ña fa nekk Cheikh di seen patron bu demee ba buntu ta digg Tamba taxaw jàkkaarloog sénégalais ne maa ngi remercier ki nga xam ne difficulté kër gi bi mu ci daan nekk day ñëw taxaw beneen bi les autres les patron de presse ana patron de presse yi parce que tey patron de presse yi tamit waroon nañoo taxaw parce que hmm. Bougane aussi na ma ne la ñetti casquette la am. Hmm. mooy casquette patron de presse beneen bi mooy télévision bi amul kuy kilifa ci politique te invité wuñ la fi. amul kuy kilifa politique te amoo wér fii promotion. Hmm. amoo kuy kilifa politique. waaye tey ñan laa fa gis. coalition yi fa di Thierno Alassane Sall Abdoul Mbow keneen ak keneen. waaye tey képp koo xam ne ni fekk na la nga toog fii xëy na am na ñu nekk ñoo xam ne seen moyen matu leen ñu dem. waaye kenn ku nekk benn bés bi waroon na la jaral loolu parce que benn jour boo toog ci télévision bi tax na àdduna yépp xàmmee la moom Ousmane Sonko sax bu tëddee warul nelaw parce que seen TV gii fii la ko fi Pape Alé doon dalal RTS ka fa nekk Pape Alé Niang ba muy chômer ñu dàq ko fii la nekkoon buggaan téye ko fi ka yor big gouvernemental buggaan na ko doon fay muy yóbbu ay njabootam kon tey jii dama wax sénégalais yi ñu xàmmee dama gis vidéo yi déroulé fii man hmm. procès bi intéressé wu ma de mooy c'est l'occasion de connaître Rome et de reconnaître mooy vidéo yi ngeen wane fii dama gis Cheikh Tidiane Sarr sama benn mbokk taalibe mu ne bàyyi leen kii ngir yàlla li ngeen fi wane ci ay vidéo ñaata at la te ci ndimbal rek la nekk depuis combien de temps ci ndimbal rek ñu koy wane tey kooku ñuy wane tey muy def ndimbal yi di dimbali sénégalais di assister ñëpp dëkk lu mu sori sori dana fa dem sol ay dàllam dugg ci teen pourtant Bassirou Diomaye duggul ci ndox mi de ak ay dàll botam waaye moom ñaata ndox ndoxu Kër Massar ndoxu Jaxaay ndoxu feneen teen fële dem ci district dem ci lépp waa léegi kooku nga ne politicien la kooku du politicien. très bien kon tey jii nii li ñu wane tey li ñu man dama ne li ñuy jàngat tey mooy dañu war a tiit parce que nguur gu ñëw joxul nit ñi ñu lekk joxul nii ñi ñu naan tëj Lat Diop di def transhumance. Mm. mais kiy dimbali ji. kiy dem di defe ji assistance humanitaire. nga ne ko ràpp ci kaso bi tëj c'est parce que dafay dimbali ay nit. donc pour man question boobu la ñu war a poser. très bien mooy c'est-à-dire kiy jóg dem di dimbali ji waate nga jëw bloqué mm-hmm. beneen bi ci topp mooy. gendarmerie ak police gis naa seen taxawaay ñu ngi leen di félicité parce que tey ñëpp xam nañ ni ni haute tension la Tamba waroon nekk mais la police gis naa ñu jël seeni prévention quoi quadriller dëkk bi ba ñëpp nekk ci jàmm gendarmerie aussi ci témoignage yi sànq wax nga ko mhm. monsieur Diouf gendarme yi ñëw taxaw wane ni carrément kii deful outrage mhm. wane ni kii deful acte de rébellion mhm. donc mooy wane ni ni benn moment fépp foo dem comme ñu ngi naan am na juge du projet am na police bu ñu instrumentalisé mais fépp foo dem am na d'esprit républicain moom donc projet bii bu jàllee maître Moussa Sarr li mu waxoon laa gëm nañu bàyyi les affaires politiques ñu koy judicialiser parce que du dëgg du yoon te Bassirou Diomaye président Bassirou Diomaye ak Ousmane Sonko ñoom justice waruñu ko woon tudd ci seen rañ mm-hmm. parce que sénégalais dañu jàppoon ni dañu leen teg injustice sénégalais yëpp dañoo accompagner woon ak ñoom xeexal leen ci si si affaire justice tey ñoom bu ñu toogee continuer di def nii justice du dëgg du yoon beneen bi si topp mhm. mooy société civile bi gis naa seen taxawaay aussi tamit Val Jojo dégg naa ko Alioune aussi mhm. gis naa taxawaayam ñoom ñëpp ñu taxaw di ci wax mhm. pour man l'affaire Bougane d'aujourd'hui daf ñu war a indi nouveau départ que sénégalais yëpp jóg pour que assemblée nationale bi ñu jëm ñu arrêter le pouvoir qui qui est li nga wax léegi-léegi beneen pouvoir moo lay arrêté cette élection bi ñu jëm c'est une élection boo xam ne ni moo mën a sauver cette république parce que lii xew nii tey avec l'exécutif te tey attitude procureur yi ñëpp ñoo ko doon campagne ñoom Ousmane Sonko. ñoo doon wax procureur yi procureur yee def lii ministère de la justice moo def lii moo def lii tey loolu la ñu xeex xeex xeex ba indi rupture. Mhm. tey bu ñu yegg si waatee fii. ñu ne la procureur bi moo jël décision bi procureur bi moo ko defal mandat de dépôt procureur bi moo ko eh, eh, defal. Eh, moo lay wane ni amul rupture ñu ñëpp xam taxawaayu procureur de la république. parce que il représente le ministère de la justice. à l'unanimité moom loolu mhm. bind ko ci livre ba président de la république ne du toog conseil supérieur de la magistrature bi mu ñëwee mm-hmm. premier discours am dafa ne pour ñu jiboole sénégalais yi faw ñu réconcilier leen ak justice mm-hmm. looloo taxoon mu indi assises yi mm-hmm. assises yi bi ñu ñëwee première problématique yi ay juge de liberté la xalaat mooy mandat dépôt nañ ko arrêté nan la ñuy fexe mais loolu la ñu réfléchir juge de liberté yow tey jii nii nga nga yëkkati taxaw amagoo sept mois nga jàpp Lat Diop teg fële commissaire Kayta teg fële te ñooñu ci lan ci ay délit d'opinion mais ay ñoom nguuda mbuub gis nga affaire yi sept mois yi si la ñu xàmmee ñu juste ñi daan tromper manipulateurs yi les personnes de mauvaise foi et les malhonnêtes intellectuels ana ñoom nguuda mbub constitution bi Ousmane Sonko bi ñu ko bloqué fii ci góor ci kër góor gi fii. Mm-hmm. mais tey ñëpp a génnoon juriste yëpp génn naan liberté de circuler ak liberté de nangam nangam indi constitution bi kon cela veut dire que ñooñu dañu doon manipuler les textes di ci man di utiliser ay textes di ko manipule pour def seen propagande politique parce que bu doon dëgg la ci ñoom dañuy génn tey ñu wax ko. ana yeneen intellectuel yi ñoom Xaadim Bamba Diagne ana ña daan wax tey comité sénégalais des droits de l'homme Amsatou Sow Sidibé dafa ñeme wa ñeme na ngaan ñu ne ma woon dafa ñeme Macky Sall kon bii ñu ko jox poste génn na wax ci affaire comité sénégalais des droits de l'homme ci lii xew nii tey ana ñu tey ana ñi wax ñi ngeen fi doon invité ana ñoom may mun a busu ñoo ñooy taxaw naan buggaan nañ ko fa tëj ñaata at ñi ngeen ibbiloon tele bi donc c'est location li nga wax bu génnaatee fii mu jàngataat Sénégal jàngataat àdduna sénégalais yi tamit xàmmee ràññee xam nga Ousmane Sonko. Hmm. ki nga dimbali tëj ko sa bureau. teral ko accompagner ko xeexle ko ba yegg si fii mu jël la tëj la ci kaso bi kon ñii dem di allié moom ñii dem di transhumé ak moom ñu xam ne ñu ngi dem ci koo xam ni loo ko lebal mu lebal la lii.